ñuy gërëm bu baax kilifa diine yi kilifay aada yi sëriñu daara ak ñi nga xam ne ñooy aar daara waaye di ndokkeel bu baax waa bitim réew di leen ñaanal sunu borom sàmm leen te kàrt na leen dén wax émission bu mag bii di seen xalaat commencé na ngeen ànd Cheikh Baye Assane Mesere tey jii nañu dalal kilifa gi nga xamante ni yaakaar naa ne xam ngeen ko gis ngeen ko taxawaayam ci réew mi muy Serigne Moodu Astu Mbàkke moom la ñu dalal mu jóge Tuubaa ñëw fas waxtaan ak ñun si lu yaatoo yaatoo waaye laataa booba xam ngeen ni boutique solution moo leen ciy gunge ñu ngi jàkkaarloo Walfadjri bu ñu xëyee huit heures dinañ fi nekk ba seize heures et demi altine ba àjjuma bala ngaa naamu say tànk yi ñëw wooteel waaye boo xamee li fi nekk jurut ngay woote mën nga daal di ñëw boo wootee da nga jot ay ndaw yu sawar maa jigéen a ngi fi ak ki nga xamante ni mooy asta kii boog Aïssa liñ la wax incha allahu rabi noonu rek lay demee xam ngeen ni Mourou Diouf moo tax ngeen mën ñoo gis Euh, macha allah image bu leer son bu leer macha allah waaye Abdou tamit mi ngi si moom it macha allah liggéeyam rafet lool ki nga xamante ni mooy Souleymane Kanji ak ki nga xamante ni mooy Ousmane ñoom it ñoo leen di jox seen i yóbbante Cheikh Adrame it mi ngi fi. soxna bu Diop ak El Hadj Sanjoogu Mbeng ñoo amee initiative bi jagleel ko Sénégalais yi mu jëm ci wàllum tawat yi waaye jëm ci wàllum xamal leen li xew ci seen réew. ñoom it ñoo amee initiative boobu taxawal fi ab télé bu mag macha allah dégg ngeen son bu fan yëpp mu xew. le premier séenu le premier la ngeen waajal ko bu baax a baax a baax a bi ñu ngi lay sant baax di la gërëm si teew bi tey jii nag ñu fas yéene waxtaan ak yow si waxtaanu yaatu waaye dara du si génn réew mi xam naa dañuy bàyyi nga nuyoo rek bu mu nuyoo ba pare dañuy daal di dugg si waxtaan wi di nuyu Tuubaa googu nga xamante ni fa nga jógee di nuyu kilifa yi dina yëfa nekk yëpp di leen gërëm seen taxawaay rafet na lool lool lool ñu leen di gërëm bu baax a a ñu bàyyi la waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. sax ngi lay nuyoo. ñu nuyu ñaari yi nga xam comme ni ko initiative initiative dafa nga ñu ci ñu ko Cheikh Ndong ma nga sa koy bu a baax ku baax la ñu koy sëriñ bi waxtaan ñu fas yéene waxtaane tey jii li xew ci réew mi gis nga ko président Macky Sall si li nit ñi jàpp ak gouvernement bi dañoo bëgg a daal ci kaw Ousmane Sonko Ousmane Sonko ni yéen ñi nga xamante ni yéenay sëriñ si dénk yéenay Sénégal dénk naa leen sama bopp bis bu ko bu jotee ni ngeen jóg ñeen bu ñuy naree daal sama kaw daal leen seen kaw xeex mënut a ñàkk te xeex bi du yem Dakar 14 régions yëpp mi ngi leen di woo si xeex boobu yi mu doon xeex bu yàgg bu metti bu tar Euh, lu may looraat ñu bëri nii kilifa diine yi yëguñu lii ndax bu ko kilifa diine yi yëgoon après nañ si mën a wax ñu bëri nii ah kilifa diine yi kat bu ñu ko yëgee mënuñu ci lu ndax mbirum yoon la euh, noo diggante kilifa ak mbirum yoon ak mbir mi ban taxawaay lañ ci war a amee ba pare ba ñoo dugg ci waxtaan wi léegi. maanaam mbirum kilifa diine moom li ma hmm. rek ñoom ak Macky Sall Ousmane Sonko ñoo ko séq. dossier ban. dossier Adji Sarr bi kilifa diine ak Macky Sall. ñoom ñett ñoo seq dossier bi. waaw ñoo ko seq. bisimilah waaw problème bi mooy. Adji Sarr dafa tuumaal Ousmane Sonko hmm. daal daal ci hmm. kaw hmm. Ousmane naa benn waaye nee nañu kilifa yi diine yi buñ buñ leen laytoo Ousmane Sonko maam li tax booy doon ruubee biñ bàyyee Ousmane Sonko booy yi dañoo bàyyi woon dem nañ ba sa ëllëg sax sëriñ si doog see wax ñaan mais laataa sëriñ si ñaan bàyyi woon nañ dëkk bi seddoon na guyu gaa yi lay tool yi naan kilifa diine yee taxoon waaye kilifa yi laataa ñuy wax affaire bi seddoon na. kilifa diine yi hmm. ci RFM. Hmm. très seulement bi mu ne ngi romb ci rajo bi dem Ousmane Sonko def déclaration bu responsable pour lundi prochain nañ def manifestation. Hmm. waaw manifestation boobu yi. boobu manifestation waajal la boo xam ne ay place de l'Obélisque wala dara te boobu du ko daaw. xam nga état bi boobee. français na ci coton français français na ba nga xam ne yeggoon na ci. Hmm. daanaka benn contrôle boo xam ne état bi koy contrôle Sénégal amatul. Hmm. par exemple mooy ci ministère fii la ñuy def contrôle Sénégal. Ousmane Sonko est-ce que xam nga li mu wax li mu wax démb. c'est-à-dire mooy loi da koy tere. appel à l'insurrection. mais même bu la neex tudd leen ko loolu ñun d'accord nañ loi da koy tere. waaw waaw waaw waaw wax na ko te maa ngi gërëm te te du seen wax ko. loolu mooy problème bu état bu français di contrôler citoyen yi dëkk ci réew xam nga lu ko waral. Hmm. injustice kilifa diine ñi tax ñu sox ko moom. Hmm. ñoom ñoo ko def woon bàyyi la. Hmm. c'est-à-dire manifestation bi lañ ko wax de. bàyyi manifestation tënk ci ay këyit li nga bëgg. mu bàyyi ko tënk këyit jox leen. bu ñu tënkee këyit jox leen ñu ne ko lii nii mooy li ñu la ñaan yow ak la ñu war a ñaan ak sànn. yéen ñii dañu leen ñaan ko ku jëfut dina ñëw ci nit ñi leen def leen ko. te loolu lañ wax. après nag ñoom bi ñu ñaanee ñoom ba Ousmane Sonko may leen. ñu ñaan Macky Sall Macky Sall xam naa leen loolu may naa leen. waaye may leen ndax bu leen mayoon lii di jógaat ndax li daa bokk ca point yi ko tënkoon mooy jëmmi Ousmane Sonko jëmmi Khalifa Sall jëmmi Karim Wade amul ku ñu ci war a hmm. ci bëgg a atteindre hmm. mooy bu mu doon candidat hmm. conseil bi même bu doon la loo koo xam ne da koo génne ci ulaam yi damay jëfe ko kalimatul xaq turaadu bihil baatil kën ngaa doon may naa leen may koo xam ne la nga la nga may ko ko bañ egg ci waxtu ba nga ko war a joxe c'est-à-dire la koy joxe. c'est-à-dire moo tax la Ousmane Sonko Macky Sall téye sax. ñu seq dossier bi. moo aji poste waaye àtte yi ñoom. Hmm. jëloon nañ ay misir yu tax mën a àtte. Hmm. ba pare itam waxtaan ak ñi ñuy àtte dañuy def ñoom ba àtte leen. Hmm. ba am am na nangu ñoom nangu nañ ko leen àtte te mën nañ leen àtte façon bii ñoom ñun ñun mën nañ leen àtte façon bii léegi nag loolu moo amul waaw li nga mooy Macky Sall mañ waxante woon moo sa tur la xam ne man d'accord naa ci moom parce que ba ko àllaa ji baara ba géete kilifa ak diine moo tax diggam ak ko Ablaye Wade en tant que chef d'état nangu na si àllaa ji baara du ma daj ne loolu moo ko yóbbal ko daan gis nga la diine xam nga la defal Macky Sall lu baax la defal Macky Sall man diine yi fi c'est-à-dire mooy Macky Sall est-ce que bu jàppoon euh, maam Ablaye Wade bu lànkoroon sëñ baara daal di tëj Macky Sall Macky Sall di ko dégg mu doon président dafa jàpp ne su nangulee kilifa yii nii la daroon ma bu bëtti ba màkkoon Abdoulaye Wade man na ko maat moom waaye nag lu bare du diplomatie te diplomatie mooy Abdoulaye Wade jamono bi ko sëñ bi di ñaan mu may ko leen ko may est-ce que jàpp ngay wàññi Abdoulaye Wade daal wàññi daal Abdoulaye doomam déew magam déew waat mu màgg ci yenn niveau yi xam nga lu ko ko ko sëñ ba ñaan mu ko gis bu bañoon lii di yor réew mii man maa yor mën na ko dal lu war mm-hmm. parce que jamono boobee Sénégal eggoon na ci boo xam ne tubaab bi mu koy def fii ñu koy fal ci congrès ba mm-hmm. xam nga mm-hmm. seen représentant fi Sénégal maa ko gis tubaab gàttal maa ko seetaan mu jël parole di yi def maam jël nañu euh, média sénégalais bi ànd na média yi fi nekkoon doon xeex troisième mandat ñu ngi koy xeex ànd seen kilifa ba nga ñu koy xaaral cest ñoom xeexuñu ay deuxième mandat ak troisième mandat ñoom ay intérêt la xeex. Mm. intérêt yoo xam ne ñoom a amee ñoom ni ñu ko bëggee. Mm. amuñ mm. ba ñu tuddee ay république ñun boobu la ñuy gis nga république maanaam jëm ni France moo ko a ak Amérique mais Sénégal mënuñu ko am ndax ñun ay nit la xam ne ñoo war a dëkk république bi war a incarner ñoo institution république bi waaye jëm ni dañoo matul ngir incarner ko xam nga tàmbatuñu ko hectare ko mooy France ban siis wala ban procureur moo ko ñëwee jël ab ab ab ay dossier maam li ñu ci wàllu yoon bu ci yokkul dara kan moo ko ñëwee c'est-à-dire xam nga république moom nanguwul loolu te ñun loolu ci république ci république li ñu tuddee république ci lañ koy defee ñun te mu benn problème léegi France ban république ban ban ban ban ban ban ban euh, institution moo am droit ñu indi la certificat médical médecin bindu ko boo dafa waat nga reconnaître nga reconnaître état en tant que koo xam ne borom xam-xam yaa ko jàngal yaa ko dafa fajal ma weeru dee dinaa la fay mu indi aw kayit ne la kayit ba nga nga a sotti kayit loolu ban république ca France moo ko ñeme c'est-à-dire mooy ñun dañoo tuddee république mais du république ñun li ñu leen mooy ay nit yu jëkk ca mbir ya dëgg seen luwaa ngeen doon ko ñu war a jiite di ko doxalee nan la neexee cest à mooy cay jii ci misaal borom bi daa ne al muttaham bariwul maalam tas bu texaantat ko nee na ki ñu tuumaal maanaam présomption d'innocence deful dara ñu jàpp deful dara ba a moo def léegi ki ko tuumaal moom la ñu wax ne moo war indi ay rek mooy tuhmatun bi laa bayyina wala bayyinatun alaa man ittaqa ki nga xam ne moo indi ay ay sas teg ko jëmmi kuy sas moom war a wut ay preuve yi maanaam li muy li muy tekki dëgg la ndax ah, Adji Sarr ak Ousmane Sonko kan moo ci wut ay preuve actuellement Ousmane Sonko moo wut ay preuve ngir am ngir lijjanti boppam te mu waru ko de xam nga kan la war mooy Adji Sarr moo war a wuti ay preuve indi teg ko Ousmane Sonko ba convaincre la yow Baye Assane nga naan ah Ousmane Sonko dëgg dëgg la doy na moo war a indi ay preuve ba convaincre réew mi indi convaincre ma mii bañ ay yéen kii indi doy na Ousmane Sonko nag waaw ku ne xelaay jabalaay ñu ne ko a ay yéen lii moom lii moom yaay yaay na ku ne ci xel yaay na ku ne aussi ci ko xam droit ci ko xam ay loi ñu mu tëddee ci ko xam maanaam mu tëddee waaye tellement nii moom jëmmi ki ñu ki ñu moom moom moom mooy gisar moom war na xam ne ñu monté loolu nag loolu nag li tax ñoom ñu daa amul sens rek waaye ñoo ko jiitoon dañ def ko réussir parce que suñu état yi ñu loolu ko tax a jóg li ko tax a jóg mooy ñi def nit ñi di leen di leen sonal. di leen teg luñ aturut. doo leen faj bu baax. doo leen gouverner bu baax. loolu la si war nekkee woon amu ci benn problème. ray ci ray ci Moussa problème. encore une fois nekk vingt ans dem yu wanam jaar fee ca bi ñu wax ray fa ay nit yu dul jeex Senghor fetal fii ci ay yu dul jàmmale. sans sa moo ko mayoon parce que ñoom tombeeroon ñoom nangu nañ di leen aussi noonu la defoon jaamarloo Moustapha Sy di tëj kee di tëj kee di jàpp kee di bàyyi kee di sàcc élection di jaar di loolu sansaan parce que république bi képp ku ko yor te mënoo loolu xamal ne amoo sens parce que noonu lañ ko tëggee daf la neex Abdoulaye Wade aussi la même chose sans troisième mandat la am waaye la bëggoon ci la ko jiitu ku mu bëgg tëj tëj ku mu bëgg génn génn loolu sansaan la c'est-à-dire république bi képp ku ko yor te loolu mënoo ko da nga xam ne yaa amul sens waaye loolu lañ ko tëggee def la neex parce que euh, ci misaal demal France ndax yii da ko fa dégg da nga dégg ne république sénégalaise ma ko dégg mosoo dégg république sénégalaise waaw république française bi sën nga dégg république française c'est-à-dire mooy jëmmi république ba

daa am na a a sa fukki dërëm en tant Sonko ku ko mën a wax boobu na ko def hmm. ku a Sonko damay gis internet bi ñu bëri ñuy ñu ni Ousmane Sonko li mu wax du yoon ndax euh, mi ngi naan ay sëñ Muntaxa sama ko mënoon a gis sëñ Muntaxa nga xamante ni ubbi na bunt yeet ay ñoom Gabriel Kan ak ñoom Wally Seck ñëpp ma man mi sax nee nañu bu ma bëggee dem damay dem rek gis sëñ Muntaxa waxtaan ak moom moom mu dem ba ak fi mu toll bët bu set muy dem ay xel koom ak dër mu seet fépp di dem biir Touba di ñëw ni munta gis ni mu waxee daal pour gis sëñ Muntaxa yóbbu ko ba mu jëloon délégation yónnee sax xel koom te ñëwoon ca moom ñaan si ko mu xamal ko ne ko yow foo nekk yow kat yaa ñëwoon si ñun ñaan si ñu boobaak léegi dégguñu ñoom ay dëbëj loolu noo ko jàng. léegi ay dëbëj moo wax la direct. ay dëbëj xam nga wax na suñu Moussa naa direct. ci buñ bëggee gis sëñ bi mu jafe ci ñoom c'est ça la vidéo boobu. xam nga. waaw waaye nag fi mu toll moo waral mu dégg sëñ bi. fi mu toll nii waaw yow fi nga fi Ousmane Sonko toll yow fa toll wala ma toll. duñ ko mën a gis wala bu ñu ko dee gis daal daan daan am ay procédure daal. lu tax c'est-à-dire mooy doomu aadama maanaam tolluwaayam. day waral yenn yomb ci moom day waral yenn yi jafe. déet man soo kay fi mu toll nii fi mu toll normalement su doon woo sëñ bi di ko ngoon dinaa fa ñëw normalement fi mu toll la. c'est-à-dire Ousmane Sonko waxuma la jëmmi kër sëñ Mountakha. Hmm. waaye xam nga état bi yor Sénégal di ko contrôlé. Hmm. fépp la miine. da koy miine fépp. ba mu a faa man a am am baat. amoon na fa baat. Hmm. waaw kër sëñ Touba. état amoon na fa baat ma jox la ci bi sax. Serigne Touba bi muy nekk Njaaréem amoon yow tey bàyyi sax boo jaxoon lu ko lu ko xamal gouverneur ba bind ko fa addeeg Seydou Rafa defoon lu nga xam ne gouverneur Sénégal man li may wax nii lu am c'est après lu maam lu nit ma waxoon gis ko maam jël na ko tekk maa ngi wax ku ko bëgg a wér demal ci assemblée nationale. Hmm. wala nga woo Baye Mbaye Guèye si la ci Darou Moussi mu wax ko ko. Hmm. c'est-à-dire jëmmi addeeg yooyu daal ñëw ko sëñ naa mu toll xam nga ne sëñ Touba bi bind nañ ah, ko. waaw bind nañ ko hmm. ak ki ñëw ci waxtu bi ak bi. loolu ñu ko xamee dañ faa da ngaa xam benn tubaab bu daan c'est-à-dire mooy c'est-à-dire su ma la bëgg a mooy xam nga sëñ Maodo Lamine Diop daanaka dem na ñaar fukki bëgg-néew juróom ñoo nekkoon officiellement ay bëgg-néew hmm. ak sëñ Touba ñooñu rafetal seen diggal sëñ Touba la ba ni ñu fi jógee hmm. lépp rafet na ñoo xam ne hmm. wax naa li ne amal la si mu fat na ka nga xam ne mi ngi ñëw ngir asaase ko sama kër gii pour am am tasaw yi fu laa boo xam ne yoru may maax yi fal ahadisu lati warada tamit maax ba masawaay gànnaay alxuraan ak hadis in kaana lil ahdaay asihatun biha xëy foofa asihati ci yow jafe bu dee da ngeen gànnaay yu nar leen tubaab yu sophistiqué yu luur yu diis man am na gànnaay yu sophistiqué yu diis luur mooy am naa alxuraan am naa sunna mais hmm. nga ab jihadiste la dëgg la innii ma xaalukum innii ujaahid saa jox day man ab jihadiste di hmm. ko def hmm. ah, ah, xam nga la innii ujaahid mu ne bi dox loo bi doxaan damay jihaad ci alxuraan ak xam-xam xam daal xar yi ma doon wax huile sër après nag man présenté sama bopp mooy ab jaamu yàlla la di ko waxal ne suñu gëm yonent bi la jamono bu ne kuy seet kuy seet kuy seet loo wala loo xam seetal na ci ku ne woon alxuraan wet gii nii ndikk loo xam ne dut noonu la mu tourné paase bi dara nekk daas dara nekkut. sëñ Moussa ko sëñ Issa indi na fi 40 000. sëñ Tafa indi na fi 40 000. mu boole mu jox commandant cercle. commandant cercle yëpp ko wér-gu-wér national loolu loo koy paase national. c'est-à-dire mooy jëmmi kese ñu ndax ah lii loolu am fa du problème dafa mën a nekk c'est-à-dire mooy ñi jàngul histoire xam ñoo jàpp na loolu problème la man dafaa ne waaye nag fi problème bi nekk mooy bu ko sëñ Mountakha yëgee rek mu saafara waaw bu ko yëgee rek mu saafara sëñ Mountakha yëgee ni Sonko bëgg na koo gis wallaahi mu saafara sëñ Mountakha par exemple ñàkk recevoir Sonko amul ñàkk recevoir la lu koy dikk c'est-à-dire sëñ Mountakha bu ko bu ko Sonko duggee ba pare dañ koy jàpp tëj wala dañuy nangu àllam wala dañ koy dindee wala dañ koy dindi ci maanaam poste bi ne ñi yëpp a jàpp sëñ Mountakha ci àdduna actuellement amul lu ko menacé lu menacé lu menacé ma ñi naan ñi ñi naan da ko euh, Sonko moo moo moo jéem a dem sëñ Mountakha bu a dem dem ñii naan sëñ Mountakha da ko a recevoir kon ñaar yooyu ba ñu ko recevoir parce hmm. que sëñ Mountakha recevoir Sonko ñàkk koo recevoir lenn lenn ci doon problème hmm. def ne nii kon gars yi wax ni jàpp lii rek waaw par exemple xam nga problème bu amee ah ñenn ñoo la ñuy jaar ñii dañuy wax ngir défendre seen bopp ñii dañuy wax ngir ngir défendre seen seen waay hmm. ñii dañuy wax encore ngir ngir leeral hmm. te ñenn ñun am nañ droit di wax nag parce que loolu moo saam alxuraan daf ne hmm. wa ka ayim min ayatin sama bala yamruuna alayha wa ma amruhum dañ waxtu ne ngeen romb ci asamaan suuf yoo xam ne ay preuve yu appuyable waaye yéen dañ ko ne sama mooy daan mooy mooy alxuraan di wax jëmmi mbir yi ni mu tëddee ngeen ko xam ngeen Hmm. da ngeen ca teg seen tànk hmm. nañ ko wax hmm. abi jëlee nee na yoon Moustapha ab yonante la loolu ñu duñ ko wax de ba dama cee ba ñax daa xeexul yoon la d'accord naa waaye dem ay Haasim ak Umayya ay problème lañ amoon su ma sama maam ak maamam de naan dal kii di gan kii de kii de ganale kii di lijjanti alal muy lijjanti alal ñu tolloo kañ lañ koy dabe kañ lañ leen wallahi inna hasaana nabaun azim mu ne alxuraan xabaar bu màgg la te fan ba ñu fi liggéey accepté wu ko de daana bay na foo bay na arab bàyyi leen koog arab fa in aussi boobu buñ ko buñ ko hmm. loolu mooy li ngeen bëggoon bu muccee ci ñoom nag fa ansuhu ansukum wa sarafu sarafu hmm. ndax a nga am seen seen yëkkatu ak yëkkati a hmm. c'est-à-dire mooy gis nga penc saa su fi ñu xam dikkee kenn ko da nga koy na xam lu noonu yéen bi am jawaat loolu wax de bi yow da ngay jabar taxal nga sama bàyyi naa wax mujj taxaw ci digg màkk ak ma ci digg hmm. bu leen bokk ñi mujj gëm daal di daal di jëkk wetti daan na Moustapha laa biir ne na aw xeenam maanaam na ci yéen kóllëre te mbiram ñii lay bu ngeen ko bëggee doog sànni ko itam yàlla mu bëggee ak saatu ñëpp ci biir dara moo waxoon Mouhamadul Kazzab ma waxoon Mouhamadul Amin ma waxaa ne Mouhamadul te doom ji ne kon al mais après ne nu mu daan te accepté na mu daan gis nga euh, problème boobu yi am fa ca kër mu ne man lijjanti naa mënu ma faa dem mënu ma mënu juróomi weer maa ngi ko wër mënu ma koo gis cest mooy li tax koo gis rek mooy fa mu dox jëm rek hmm. hmm. fa mu dox jëm fa mu dox jaar rek xam cest à mooy comme ñoom nee nañ sëñ bi ay buntu yu bëri dafaa jëm hmm. loolu la ñu wax n'est-ce pas ba reconnaître nañu sax am na ñu ci biir que sëñ bi ñoo seen intérêt xam nga bu bu yemee ci ñooñu rek. Hmm. mais est ce que yi li ko waral yéen yéen maam doon ay mbàkke mbàkke dëkk Touba. di politique ñi bokk APR ñii bokk Pastef ñi bokk nangam nangam est ce que yéen bu fekkoon tënku ngeen si bañ a euh, jafe-jafe yooyu dana am. ah man moom politique moom première. yow politique ko yow mas am mun taxaa. di ko siyaare doo am jafe-jafe. am da ngay woote ba ma demee am na problème pour gis ko. Hmm. waaye nag ba ma jaaree fa war a jaaree tam gis naa ko ci na ma bëggee. dëgg yàlla mosuma gis ku fa ku na ma ko ndax xam naa war naa ji. fi ne nii moom bu bëggee gis. fu jaar gis ko. sëñ Mountakha Mbacké war naa def si rumeur bi rumeur yi am naa suñ ko. non sëñ Mountakha sax man ci orma ju ko nit ñi war a ormal rumeur yi mënuñu ko ko jox. Hmm. xam nga lu ñu ko war a jox am nga stade bu ñu wax Ousmane Sonko da laa bëgg a nuyu si. dana ñëw hmm. loolu loolu noonu la war a def waaye gis nga yii ñuy waxtaanee sax wuñu ko ko ci kaw respect laa la wax de. Hmm. c'est-à-dire mooy gis nga détail. kenn du ko si kilifa. Ah, détail kenn du ko si kilifa tout le temps da nga koy faral di faral di jax nga bàyyi. wallaay wallaay bu ko waxee nag ñun ñu nga wax ñuy wax ñu bàyyi ñoom wax ñuy wax rek. ñun ñuy wax waxtaan suñu kuréel yi rek ñuy wax suñu suñu tolluwaay. c'est-à-dire mooy moom. ñuy am solo mooy. am na ku ñuy wax Ousmane Sonko sa taalibe ba nee na laa bëgg a gis. Hmm. moom nee na doom laa encore mais taalibe ba nee sët laa doon wax. Hmm. sa sët ba sa taalibe ba sa doom nee na laa bëgg a gis. Hmm. sangam. waaw li nga ko gisee wax ko lam ko lam ko wax mu dégg ko dem ñibbi. mais ñi si des nag yeneen xarit yi moom daa mel ne moom waxut pour gis leen ak yooyu de wala wala wala dati ni kee moo ko wax joxoon ndigal li. xam nga ci misaal xaalis naa dem rek moo fi ne. xasal Tijaan xasal Ñaseen xale yi ñu nekk ñun ñëpp. ah yéen canaba affaire yooyu. ñun ñëpp ñu ngi fi. ñun ñëpp waaye dafa am loo xam ne Ousmane Sonko yi da ngay seen ko en tant que politicien. mooy bu ngeen seetloo Sénégal politique bi dafee dafay amoon politique booy booy politique nekk ab tijaan day gën a yomb ci nga am militant tijaan booy politique nekk am murit day gën a yomb ci nga am militant yoo ay murit la ñu doon booy politique encore une fois nga nekk Ablaye wala Xaadir wala koo mën a doon day yomb ci yow nga am militant yu gën a màcc ci a a yi nationalisé ko moom

waaw man de. te eh, gars yi nee nañ chambre criminelle fa ñu àttee ñu rey nit. ko war a àttee. waaw xam nga moom ci misaal woote bi da ngay xool ñam woowoon ñaan lañ. Hmm. demoon nga ko woon ña nga fa gis ñu am juróom-ñaar fukki at bari nañ. déedéet ña nga fa gis ñu doon ay jigéen bari nañ. c'est-à-dire fa gis maanaam ñu doon nit ñoo xam ne ñu ñu paas lañ. Hmm. ak lu ñu lekk ak lu ñu yendoo bari nañ non dañ doon nu ma koy ñu may gis di jiite dañ doon dox ak daaw kay ñàkk te waaw léegi ñooñu nag xam nga xam nga lu leen indi ñooñu Ousmane Sonko indi na seen bopp na indi nit na saas ko boppam dafay jóg hmm. ah mbiri boppam da ci fiir mbiri boppam mooy sama réew sama sama réew sama bopp hmm. sama réew sama bopp kii sama réew lu ma gis Ousmane Sonko bu ne woon kaay leen nuyu sama yaay kenn du dem hmm. bu ne woon kaay leen yóbbu sama soxna si yóbbu dem du dimanche kenn du dem kaay leen waxtaane suñu réew la wax kaay ñuy waxtaane suñu réew waaw kay léegi nag kaay leen léegi nag ñi ci des ñoom dañuy woote ne kaay leen jàppale ma lekk ma lekk seen moo waral ñoom waxtu bu ne Mm-hmm. suñuy woote dañ leen jox ay t-shirt jox leen ay pancarte jox leen cent dix jox leen cinq mille mm-hmm. dégg nga léegi nag kaay leen jàppale a mm-hmm. ñu li tax ñu jox mu nekk gañaa gañaa a a a man ak yéen mooy li ngeen di saa seen dana taxaaraw ilaa in baynanaa wa baynakum allaa na'budu illallah kaay leen ma euh, qul ma ñëw leen ñu jaamu seen borom aw ma jaamu gi ma leen di yàlla ji ma leen di woo ma leen ci xewal ma leen ci neexal hmm. da ngeen def baax ku def lu baax xëy na si man asana fan daya hmm. yaa moom nii rek la wax ñëw ñu ñëw ñu ñu defar suñu réew nit ñi nag bañ ñëwee bu fekkee jàngal nga aw nit ci tolluwaay war ngaa xam ne tolluwaay bu kawe tolluwaay bu kawe dégg naa nag wax nga di wax sa am na fan bu fa àggee maanaam ba xàmmeetul dundam dundam ak dem hmm. xàmmeetul ñàkkam ñàkkam ak am xàmmeetul ak wéram ak wéragam la mu xam mooy luy tax mbiram defaru xam nga itam la ko yàqal dañu ko yàqal daal di ko yàqal te dañoo nar di ko wéy mu di ko yàqal ma xam ne yàq gi moom mënatu wéy lu mu doon yàq gi benn moom yàq gi dafiy jógee bu fi yàq gi mënatu jógee moom mu jógee fi ba fi yàq gi hmm. nit nag baa ngay foofu hmm. dañuy leen ma faaw faaw sori faaw waxtaanoon am waxtaan nag wax naa ni du Ousmane Sonko def a waxtaanee hmm. suñu loi def suñu constitution ba wala ab référendum Macky léegi la ci def mooy def nañ waxtaane woon lañ waxtaane woon la Macky Sall nu mu ko def lañ waxtaane woon mooy am na deux mandats na dem mu naan nañ wax naa la nañ waxtaan hmm. du wax du wax du wax waxtaan nañ ba pare ñoom ñaata hmm. ñu. mais affaire bu dee affaire troisième mandat moom président Macky Sall waxu ci moom loolu mu leneen la moom loolu ñëwagul. bu ca wax affaire affaire procès bi ñu xam ne yóbbu nañ ko nee ko da ngay dem procès moom nee dem mbirum procès mbirum aji saat moom ndax suñu si bi ci bëgg tuddee ku ko ci wax dara. Ousmane Sonko démb nee na pare na ci mbirum Ousmane mbirum Adji Sarr ak ay procès yooyu fii la ciment yem yem na fa jeex na si fii. àgg na ci egguwaay kay. àgg na ci egguwaay egg na ci xam ci war a yem. waaw egg na ci egg na ci xam ci war a yem waaw waaw sës na daal ci misaal. léegi nag Macky Sall mi ngi leen waxoon Macky Sall wax na troisième mandat. Macky Sall moom tàmbalee ko turam sax si moom si bu mu lijjanti diggante ma Adji Sarr. Macky Sall. loolu échec wu rek waaw. wax na ci troisième mandat. waaw xanaa gars yi ñëpp a ngi naan day wut troisième mandat. horizon 2035 dégg naa am Amadou Ba wax na ko ci émission benn benn télévision. waaw hmm. maa ko dégg ci laa mel. kay wax na ci. wax wax ay gars maam bañ a ngeen mooy seen candidat. woo moom day liggéey waxul. yonte bi koo dayal. da xam nga ne yonente lii tax ñu a jëfee sunnaam koo tere xam nga loolu dañ koy dañ yonent loo xam ne noonu nga xam ne hmm. ah, gisee dara ba pare noppi ca loolu dagan na. Ah, ko hmm. daa dafaa noppi saxal na ko. waaw ah, nga dëgg de. c'est-à-dire mooy Macky Sall comme gis nañu du ko wax. Hmm. mu saxal ko te ña koy weddi itam daa ci la leen. ña koy weddi mooy Moussa Diop nee na ko mënootu mënut a mu daal ko ci fasam. c'est-à-dire gis nga maanaam nit ñi doo taxaw nag di xaar Macky Sall wax na ko ci àdduna waaye jafe ba bu dee xam beneen xaq bi wa inna saa sax te jàngale arab ñiy jàngale naaxu grammaire hmm. dañuy wax hmm. ci grammaire ñun d'accorduñ ay isaara hmm. ak dara dangay wax salaam ñu dégg am noonu lañ wax waaye al isaaru takrima arab ñu ñoom réew daal ne am na ci wax ci ñu waxan ko gis wax lay dégg c'est-à-dire mooy ñi nga àndal ñëpp wax nañ ko amul ñi nga àndal ñi wax ko itam génn nga leen sa ànd noonu cest mooy ñi àndal yow di ko wax confirmé nga seen ànd leen di koy ñi àndoon ak kon léegi léegi loolu loo koy xam naa ne damay damay nga baal naa tuuti Serigne Mahi Niass xam nga ko. moom dafa am réew yu doon dàkk. ñu lijjanti ko ay at mënuñu ko lijjanti. moom mu jël fii avion dem. lijjanti leen jubóole leen. jëlaat avion dikk. réew mi jaxasoo lool. mu mel ni daal moom ñoom mënuñu ko lijjanti léegi ñun ñun ñoo xamut dayoom wala moom. moo bëgg dugg suñu détails yi ñàkk fayda yi wala wala daal lan la moom lu ma xam ndax. xam problème ay réew nga dem. problème boo amoon foofu ay bomb di tàkk. Ah. nga dem lijjanti ko si ay seconde ñibbi si waa sam réew. sam réew nag jaxasoo euh, ah, lu mu demee noonu daal. moom Soudan Soudan du Sud bi mu demoon. Soudan du Sud bi mu demoon. Soudan waaw ñoom amuñ problème ak opposant ak ak chef d'état. Hmm. problème ethnie la ñu am ñun amuñ problème boobu. Hmm. xam nga ñoom problème kee bël la kee joolaa la kee soose la problème boobu lañ amoon boobu lañ amoon ñu di ko xeex di ko xuróom kenn ku ne naa maamam suuf si maamam géej gi maamam ndox mi problème yooyu lañ amoon mu dem rek la leen ko ñun nag amuñ problème boobu ñun problème bi ñu am mooy dañoo am état état bi egg ci war a jeex yaa ngi dégg ñu wax ak ko wax suñu Samba Niass moom moo ne yéen a ngi naan duñu wax ko dégg nga ko wax nañ ko ko ku la dul dégg da nga mujj noppi lam defee def na ko fii léegi nag ñee ne dañ ko dégg te kii dégg kon est-ce que ñee gënuñoo xam loolu ñii. nee na gënuñu koo xam gënuñu koo xam problème ba pare lañu woon fee ak bii fii kenn lañ fi waxal dafay mbooloo lañ fa doon waxal mbooloo mais itam xëtuwuñ mbirum état hmm. am problème état xam na ñee bañ leen lijjantee hmm. ne leen fii nga tàmbalee fii nga mu ñeen lii bàyyi bi hmm. bañ ko defee après lu jënd doon jàmm léegi nag kii dafa gëm ne moom état bi suñ ko nee bàyyi ko boo ko bàyyee su ëllëgee lu doon moom la ca gannaaw lay xalaat xam nga la ca gannaaw lay Hmm. ça veut dire mooy mbir problème yi daa bokkul. Hmm. problème yi ba pare itam kenn ñoom ñoo ko wane ko kaay dimbali ñu. ñee it moom ñun dañu ko wane. seen seen président seen seen xam nga ñoom li wax gouvernement militaire la yor boobu. mais fii daa mel ni Ousmane Sonko ngi woote rek de. Ah, mais kii kii kii waaw boobu maa ngi koy militaire ma. ka yor ba doxal yor institution yi mënu ko ñëwal. dana mm-hmm. lijjantil ma mm-hmm. lii ba mu demee mu lijjanti ba mu bëggee ko lijjanti ci dégg ma ko Ousmane Sonko ba mu wootee ne lijjanti lijjanti ko na eh Macky ko lijjanti Macky woote wut de waaw moo ko lijjanti seen bi eh, Macky kay saa Macky jekk woon yow Macky yor armée yor léppam <laughs> Macky woote wut kat nag ndaw ñi ñoo gaaw eh, imaam yi xamoo fu ñu nekk ñoom it yi dem seeti Macky Sall pare ñëw seet si waa kër sax xam nga imaam yi ndeysaan seen kilifa yi yàlla na seen yàlla jëriñoo dara ndax def nañ ko. waaw ah, si la jiw juddoo di wala maa ngi xam nañ ko def. daje fii Dakar woo woo média bi. Hmm. te affaire bi bay di tàkk. ñu wootaat beneen woote boo xam ne kilifa yi ñu ne dañu ne nga fa ndaw. waaw affaire bu bay di tàkk. Hmm. xam nga la ñu dooroon nag def seen i pexe si ñun dafa jóg ñëw lijjanti ko. Hmm. c'est-à-dire mooy moom Macky Sall. tellement nii ma doon wax ak yow. mbir yi bu bu bëggoon mu saafaraw. bala génn fii ñu doon maa yi doon faa mooy na dellu ci moom institution yi respecté leen dañ hmm. incité respecté leen mooy jëmmi docteur ba ak capitaine ba ak ka nga xam ne moom moo yor enquête ba ak seen ak seen euh, seen enquête interne boobu seen biir gendarmerie bu defee lañ wax rek mu jeex hmm. bu defee lañ wax rek kooku jeex comme que mbir mi egsi na fii est-ce que moom it bu bu deltoo ginnaaw nii ne du doon defet bu rëy maam kii kat jéemal na ko ba sonn comme jéemal na Khalifa mu am ndam hmm. jéemal Karim am ndam jéemal ñi fi jéemal ñëpp am ndam léegi ñëw si Ousmane Sonko jéemal ko mënut a am si moom lu toll na sa da koy topp. def li nga war a def. mu doon ci yow defet man mosuma hmm? ah, eh, moom bis bu nee yi noonu la wala hmm. affaire yi bàyyi nañ. Hmm. wala teg nañ ko si suuf wala kilifa yi ñaan moo tax. defet dugg na waaw léegi nag ñun ni ñu léegi base ñu ni ñu xalaatee. moo normal xam nga tax. jéem yéen ki jël mbir yi teg ko ci yoon. non bu ko teeloon a teg si yoon ñu d'accord mais fi nii boo demee ba mbësës mënatoo si dara nga doog koo teg si yoon su boobaa dañuy xam ne ñàkk pexe tax nga teg ko si yoon. mais boo ko tegee si ñàkk pexe si yoon. Hmm. waaye noona la nga cay gañe. Hmm. mooy temps la la ngay gañe ci boo demee ba boo demee ba maanaam nit ñi génn la ci biir. c'est-à-dire mooy mbir yi nii rek la hmm. a ko. léegi ñu bàyyil ko ko. cest bu ñu leen ko perte combat itam. xaw naa seet daan na waaye boo demee bañ jàpp ci sa loxo bàyyiloo ko neex na xari loolu musiba la loolu mooy maanaam ñu bàyyi fii ne dañuy tëj Sonko man unitaires yi wàcc wala kon police ak gendarme wàcc wóor na ne ñii ñu jàkkaarloo ne xeex ak ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk mm-hmm. a doon bu dominer mm-hmm. bi saa suñu mm-hmm. baax nañ ma ko wax perte nit ñu doon dund faatu ci lu dégul fenn wala état boo xam ne c'est le minimum damay wax ne bu état boo xam ne mooy état yi ñu soxla dëgg dëgg waaye ci misaal baasan man ngaa fanaan sa kër man ngaa dem man man ngaa dem ci banque te kenn du rek comme ça am nañ as lëf suuf suñ koy aaree loolu ñu tam bu ñu ba France su ko yàqu hmm. may dañoo war a xaar lu ko yokk la la ca nekk da bu jëlee lépp maap nu demee loolu mooy maanaam bu ñu jaakaar loolu ñoom hmm. maam ngu wóor di ak waaye ba lii am am bu ci mën a gaañal bu ko bi ñuy waajal pare woon nañ pour place de l'Obélisque ñu duy ko woon leen matériel bi ñu am pour mën a xeex buñ téye Ousmane Sonko waaye Ousmane Sonko nee leen affaire bi du fii 14 raisons yëpp la. Ah, ma ah, waaw xam nga ngeen ngeen kii fii 14 matériel yooyu ñu indi hmm. dara. amul benn état ci adduna boo xam ne da ngaa ne ci sama loxo lu neex. Hmm. état Sénégal dañoo signé ay convention internationale yoo xam ne ay armes non sax dañ lay tere yi walaat ko Ukraine doon na tàmbalee guerre Russie Russie ndax day gunge si daal ma bombe atomique nga def lu ko ci moom convention internationale yi moo leen tere ne leen yi ne dafa am ay armes yoo xam ne non conventionnelles la kenn amul droit utiliser ko ci guerre hmm. waaw loolu nag li muy am am amaana leneen lu gën a xóot loolu mooy dafa am yeneen matériel répression yoo xam ne kenn amul droit riposte ci ak ak ak ay civil yoo xam ne sawat na civil si civil sa a gis nag état bu ay gànnaaw ngeen xaar ba dëkk ma wallaay lancé naa ko door rek hmm. dama xamoon ci état bu daan jënd ay gànnaay hmm. danaan défendre peuple hmm. la wa aduwwakum wut ay matériel laa ci ay carte nga dem mënuloo am seen i ngay furu seen élection mënatu la ne nga ne léegi kon nañ xaax waa léeg-léeg da ngay nekk si benn groupe nga gis ñu jékki-jékki benn ah, oto bu mu ab benn kii ñu waaj naan ma lii lay na jaar suñu kaw rey ñu ko a. Ah, oto yooyu noonu bu hmm. la jox la oto doon yow doon nga yor ko. Hmm. yaa ngi dégg. ma la jokk la ñu nekk hmm. am na détermination boo xam ne bu population mu leen téye. am na ñu leen gis nga Égypte actuellement ni premier pays sans arme Afrique est nga ne moom moo ko yor. fan Afrique képp Égypte moo fépp doole. Égypte gii Égypte gii Afrique képp wël ba population bu génnee lan lañ camat ñoom. Hmm. daraan ci mut kon population mooy affaire bi moo tax. population Sonko naan te dénk leen ci boppam. très bien taxaw nga benn affaire am gis nga gis nga état bi xam nga doon jàpp Sonko mënuñ mënuñ ko jàpp. day hmm. def état bi tey état bi tey wule hmm. état nit ku mën a jàpp ci biir réew mi ndax ndax état bi amul problème problème ak état bi yi amul yi di daal di utiliser état. bi état jógee nit ñi jàpp xalaatuñu état lay jàkkaarloo

ci misaal bu ñu wax ay insertion ak police gendarmerie ñan ñoo mhm. bu ñu demee ba gën nit di ko utiliser ngir daanu nit ñi ngi si virage bu mujj bi Mame yi nee na Ousmane Sonko bu Adji Sarr boo doole ba kilifa yi ñaan ba kii ba kilifa yi nañ bàyyi mu sedd ba président nangoo mu sedd. Mhm. foofu moom problème mais fii moom man ak yow yaa ma tooñ ma plainte la foofu moom loi bi moom day àtte par force. waaw foofu la lay def waaw waaw wax dafa ànd ak xeetu li wax noonu boo ko déggee da nga xam ne da ngay fi wax mën naa ko set. Hmm. waaw li mu ne maanaam bu état ñaanee. Hmm. sëriñ si ñaan doon set. Hmm. yaa ngi ci saar bu jeexee kon loolu mën naa am bu jeex yàlla yàlla ngi mu ñam barkeel. Eh, li mu ne ko nag man ak yow. Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang du combat. du combat déedéet. ah maa may li tax du combat mooy seen mu def conférence de presse ne ko bul fàtte ne deux a ñëw. waaw conférence de presse bi démb li ko waral mooy. lii hmm. ñuy def tey ñun ñun ñi la doon fooyee te fooyee na hmm. ñu wax loolu rek moo ko doon wax. waaw waxoon moom fàttiwu ko hmm. ndax waxtu bu la wax ko seen télévision seen plateau yi c'est-à-dire mooy Ousmane Sonko actualité du jour la ba dugg gaal ci ñun la doon fooyee fooyee nañ mais mais ma Mbaye li mu wax ne pare na pour saisir ko këram ak yëpp bu fekkee am nga loo fa bëgg a jënd ak yooyu. waaw xam nga loolu moom ba tey man man maa bëggee jënd dara. waaw man de xam naa ne la koy laaj mooy 9 milliards. yi mu laaj. su saisiroon Sonko ba mu jeex mu jot ci. yi muy laaj. ah baalu baalu mbir yi duñ ko duñ ko laaj. dañ ko laaj. man de maa bay ñaan man soo amoon ci moom sañ-sañ hmm. te sañ koo wax sañ koo wax dafa nangam ak hmm. nangam mbirum Sonko xam nga lu ma cay def nit ñi hmm. damay toog di ko xool di ko seetaan di ko seetaan ndax mbir mbir mbir la moo xam ne ah ci li ci li ma jàngatee ci ma daan xamaat ni ma daan xalaat yi mbir mooy loo xam ne dara mën lu ko téye loolu yàlla waaw te yàlla li mu ko def nii dana ko téye dana ko téye boobu waaw dana ko téye léegi nag kañ la koy téye mooy affaire waaye dana ko téye xaw ma la koy téye avant muy am ni mu bëgg woon day bàyyi mu am ni mu bëgg woon dana ko téye xam nga Macky Sall yàlla ko yëkkati yaa ngi dégg feneen eh, ko ci yàlla mooy yëkkati mbir mi tee léegi mbir yi da jàgg foo xam ne yàllaa yëkkati Macky Sall dama wëyteel boppam am na solo léegi Ousmane dañ ko dégg dem ndax dañuy dégg nit ñi naan ay Ousmane même buñ ko téye woon it parti bee nga fii ay biram feneen ne ay o nangam mu xamal leen amul plan B amul plan A pour Pastef Ousmane Sonko mooy seen candidat xamal leen daal ñu doon xalaat ay buñ ko téye woon it kii mën naa dem ak yooyu patriote yi hmm. nga xam ne ñooy wax wax jooju yi hmm. wax la nit hmm. ku naan ay C loolu divertir non dañoo bañ dañoo bañ parti bi tasee xam nga Ousmane Sonko tey jii bu ñu ko téye woon mara day taal yi parti bi xamuñu fi yéen xanaa xamuloo ne joxe leen Sonko même fi Sonko jógee diwa gi fi yéen xanaa xamuloo ne loolu ñuy wax noonu hmm. maanaam waa APR ñoo leen ñoo leen guddee ñu koy wax ma hmm. jox la ci benn misaal Ikhwanul Muslimin lay feral musulman ci Égypte hmm. ba ñu defee 66 pour cent gagné état ba yaa ngi dégg ba Mohamed Moussa jiite ko bi ñu bi américain yi ak français yi daal di mobilisé wu ngir jëlee ko fa ànd ak Abdel Fattah al-Sisi seen général bi bañ ko fa jëlee bañ ko xam ba jëlee ko ministère moom seen département bi. Hmm. ba yëngu département dañoo di suñu tur maanaam jëm yi axwaanul muslimin dugal leen ci liste terroriste dañ dañuy musa ñëw parce que fii bu ñu jëlee Ousmane Sonko barke alxuraan parce que dañ koy di suñu tur dootu ko laal dootu mën a dem saa yàlla. Euh, kon nag jëm yi jëm jëm ah, yi. balaas mooy Ousmane Sonko loolu la Sonko xam. loolu la de balaas mooy Ousmane Sonko gis nga ni gis nga ñoom bu ñu defee ne. Hmm. Ousmane Sonko bu toppoo keneen maanaam déedéet parti bi la ñuy di suñu. Oh, parce que moom mooy keneen lu ko yàq gis nga bokk na ci kenn. gaa yaa ba Ousmane Sonko avant mu judd fi la ko fekk mu dee fi la koy may ndax ñun la ci Amérique jëriñu hmm. te ñun jëriñu jiwuñ ci. c'est-à-dire dañoo am jëm nit jëm ñu ko taxawal. jëm ñu koy taxawal nag Ousmane Sonko bokk na ci les premiers leaders bi ko njëkk a incarné Sénégal a nekkal Sénégal. Hmm. Hmm. na incarné na ko nit ñi nañ ko nangu nañ ko te laaj fas yéene nañ ko jaare ba mu jàttaak bis bu fa jugee bu ñu jàppee ne Birame Souleye Diop dañ la ñuy état su te moom moo gagné mu jeex fu mu di ay kayitam ngir bokk ci élection am solo sunu jeex na tàkk tey ji bu ma la tànn la woon ñeenti candidat hmm. eh, ñoomay tànn ñeenti candidat yoo xam am nga yow politicien non politicien xam nga fi ne nit ki sa nit même xam nga politique daa bokk ak soi daa ngi nii tey jii buñ ne ñenn yooyu noonu soo ma ko tànnloo wala maa tànnal ma ñett ma génn ci kenn wala maa tànnal ma ñaar ma génn ci ma man minhum man naa alaykum minhum man ma lay nett seen biir am na nettali vingt cinq prophètes ba mu neexu mu dindi mu dindi vingt et un yi indi quatre ba mu neexu mu kenn xanaa daa génn ci ñoom la sant nañ la bu baax euh, la sëriñ euh, xam naa ne si kanam tuuti moom léegi tey gars yi tàmbali laa jabulisee <laughs> tàmbalee defanteeg yow tàmbali laa indi problème mais euh, réew mi léegi ko tax a jóg réew mi léegi moo ko ñor naka lay def ba raay jub yi la nekk ñu ñaanalaat ku baax rek sunu borom sàmm ko bi nga am si sa réew yàlla la nga àggale ko. Hmm. loolu maa ngi koy xaar. jërëjëf du jël nañ ko baax gërëm ko di sant mu. waaye yow nag li ma wax rek. man ku li wax jëm ci man wala nga jëm ci man dinaa wax jëm ci yow dinaa hmm. jëm a doon. kon daal kiisa kiisa. te loolu alxuraan wax alxuraan ku ci baax aleykumul xisaas fayandu bu la neex ngeen def ko. Hmm. ku ci bokk xooli ngay mën a baal na baal la door fayu waaw wax am na solo kon Modou Diouf door fayu la mi ngi noonu ñu ngi koy gërëm bu baax moo tax ngeen mën ñoo gis ci image yi seet yu sell ak son bu baax macha allah ngeen ñaanal ñu rek yokk xéwal yi ba mébét bi am ci réew mi ñu nit ak initiative bi nga xamante ni teg nañ ko fi yàlla téye ko yëkkati ko ba ñëpp gis ko tam am na njariñ réew mi yëpp jërë ngeen jëf ba suba incha